Ah, damay tàmbali pour vraiment sargal ak sant bu baax commission yi commission yoo xam ni juróom benn la woon yoo xam ni daal jëm nañu tënk lépp loo xam ni mooy jëm si yëfu média si ñuy doxalin naka la lu ñuy wane ñu ci liggéey euh, loi yoo xam ni moo ñu encadré jafe-jafe yi violence yeeg lu nekk protection yeeg lu nekk daal mu ngi ci donc euh, ba nga xam ni liggéey boobu ñu def dafa nekk liggéey boo xam ni am na solo loolu parce que du waa média yi kese ñoo toog tëju ne nañ ko def suñu diggante dëgg la waa média yi ñu ngi ci woon mais dañ ko tijji bi ko si ñëpp si force de sécurité yi si ay experts si ñu am yeneen xam-xam si société civile si association consommateurs yi si ay politique ñu rek ba nga xam ni dañu xam ne média dafa mel ni loo xam ni ñëpp ko war a bokk parce que bés bu nekk képp ku nekk sa kër noonu ngay jëlee di ndekki comme si si si yeeg turé turé yeeg kii noonu ngay consommer média média man damay wax souvent que la mënoo xalaat ne nit toog suba ba ngoon bëccëg ba guddi day xoolul média seetu liiruma xooluma dégluma rajo daf ma loolu mu mënul ne donc il fii mu Sénégal fi ñu toll nii ñu xoolaat bu baax lan la ñu bëgg lépp loo xam ne dafa jëm si xarala yi lan la ñu bëgg mu mel feek waxuma tey suba ginnaaw suba fekk ay at yéen seen génération ñuy topp si yéen lan la ñu bëgg naka la ñu bëggee jël Sénégal mu am taxawaay boo xam ne dañ ko ràññee si àdduna bi ndax xaralaam ndax médiawam yi donc def naa loolu yëpp ñu def commission yi def seen ay recommandation dinañ ko càmbar léegi dinañ ku nekk di nga ci indi sa xalaat dina am ñoo xam ne dinañ ci am lu ñu ci yokk dina am peut être lu ñu ci wàññi mais suñ ko jëlee ba tënkoo ba ne lii la ñu bëgg mu mu doon su lu jëm si yoon lu jëm si ñu ciy liggéey ñu jëm si économie bi maanaam koom bi ñu jëm si publicité bi jëm si euh, établissement public yi nak la war a taxawee privé yi naka la ñu war a taxawee su jëlee loolu yëpp ba boole ko yaakaar naa ne dañu am ay médias yoo xam ne seen taxawaay dina gën a dëgër parce que média dafa nekk loo xam ni si réew dafa am solo lool lool lool lool lool dañ ko nag yenn saa yi nag duñ ko jox cër bi mais il faut ñu fullaal ko il faut ñu faydaal ko jox ko cëram parce que amul dara lu nit mun a def muy domaine bu mu mun di noonu muy santé di économie di industrie lu nekk munoo fi def dara loo xam ni médias yi suñ ci jàppul suñ ci àndul di nga atteindre maanaam sa objectif loolu foofu nga bëgg yegg di nga fa yegg ñëpp ñun candi candidat yëpp ñun kii loolu la wax candidat yu nekk président ñëpp dañ leen jëm pour mu am ay engagement mu xam ne dañu am yu clair xam ne ko wax ne man su mën ma falee ëllëg lii lii lii ngeen wax ni dinaa ko doxal parce que euh, tamit bon secteur yu nekk ñëpp ngi bougé tout mais di naan souvent que média dafa nekk lu ñuy naan quatrième pouvoir affaire bi pouvoir di jaayante doole ak yu dafa nekk pouvoir parce que nu ma loo mënoo jël dara ci réew loo xam ne média su ci dugalul loxoom su ci àndul su ko tasa tasaarewul dina mun ndox munul ne muy santé Covid bi ñëw mu ngoon fii mun nañu multiplier exemple yi soo sa koom-koom soo bëggee investisseur ñëw si sa dëkk il faut que yi di def ay programme économique di koy wane di wane nak lan nga lan moo am si réew mi ak yu bari bari bari donc dafa nekk loo xam ne vraiment il foog ñu jox ñu comme nu mu waxee jox ñu suñu gëdd jox ñu suñu cër. parce que média dafa nekk loo xam ne dafa important trop du question ki soxla nañ leen ñëw leen tourné leen dem leen seen yoon di non non il faut que ñu am fulla fayda bu mu mët sëkk pour vraiment pour ñu kii man dama bokk si ñoo xam ne dama naan réew mu réew bu jël un pour cent budget national am soo ko defoon tey si média yi fi ak ñaari at ñetti at àdduna bi yëpp wënd wërngal këpp dañu xam ne réew mi am na lu ma def si média mi am na taxawaay boo xam ne di nga ko am dina dina jàppale sa économie parce que tamit média tamit secteur économique la dafa nekk loo xam ni comme nu ngay defee usine di def leneen yemul gaa mais dafa war a indi koom-koom si réew mi donc euh, loolu yëpp daal dafa naa ne suñ ko waxtaanee ba tëral ko ba ñu appliquer ko tamit